xam ngeen ne LD ñaar la LD am LD dëggu LD dëggu bi taxaw fii le digne héritier de la LD MPT suis nekk sama génération wala ñu mag ma tuuti lan LD MPT du professeur Abdoulaye LD LD bi il a participé à tous les combats démocratiques de ce pays là LD à moi LD bi nga Sénégal à chaque fois que Sénégal un ci y dina un xalaat waxtaan tracer voie pour que Sénégal gagne ci LDB, LD aujourd'hui est dirigé par Papsar, il est empêché il est engoyi dans la campagne je voulais dire aux Sénégalais à l'intérieur du pays comme en dehors du pays que l'heure est grave et il faut être lucide pour faire le bon choix. La LD a participé à toutes les alternances de ce pays-là. La LD debout n'est pas un parti qui est intéressé à un intérêt individuel égoïste non c'est l'intérêt du peuple sénégalais qui nous intéresse il y a de cela 18 mois nous nous sommes réunis en secrétariat nous avons analysé la situation du pays et on s'est accordé pour dire que si on ne se levait pas, le Sénégal risque de vivre des périls dangereux. Nous avons dit il faut qu'on se mobilise pour deux combats. Le premier combat, c'est faire de telle sorte que Macky Sall ne soit pas candidat. Pas de troisième candidature. Et dans ce cadre-là et dans ce sens-là, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons rencontré les forces politiques de ce pays-là, les unes après les autres, pour mettre en place la F-24. Et je crois que la F-24 a réussi sa mission. Si ce n'était pas la F-24, aujourd'hui, Macky Sall serait là à battre campagne. Nous l'avons acculé, nous l'avons poussé à quitter le champ politique. L'autre combat, c'était quoi L'heure étant grave, Sénégal nek dëkk bo xamni ne képp ku jug taxaw wax yaakaar ne yaa war a mën a yore réew mi ci Sénégal nga gis réew moo xam ni picc mu jug ni mën naa nekk président de la république xool leen bi nee la nit ñi dem jëli les fiches de parrainage combien de Sénégalais se sont levés pour aller retirer les fiches pour se dire président de la république parce que suñu réew dafa yàqu Macky Sall dafa yàq suñu réew Maintenant, il faudrait que aujourd'hui ñu taxaw xool lañu war a def bu loolu jeexee ñu en tant que LD debout nan leen wër leader politique yi ils sont dignes de confiance Maintenant, nous noo yaakaar ni ñii war nañoo mën liggéey ak pour rassembler toute l'opposition autour d'un candidat loolu moo doon suñu ambition ñun rassembler toute l'opposition autour d'un candidat une mission difficile si le nous avons sollicité à rencontrer des leaders d'autres leaders ont sollicité à nous rencontrer à travers des échanges nous avons analysé le pays il y a eu des convergences de vues nous au niveau de la LD on n'attend pas un mot d'ordre d'un quelconque secrétaire général. Non. Nous sommes un parti structuré, national. Nous avons convoqué tous nos militants en bureau politique le 19 août 2023. Dans ce rapport-là, il y avait deux choix à faire. Parmi ces deux choix, il y avait Khalifa Ossanda. Quand on a discuté en bureau politique, on a dit que le Tahaou Sénégal a une base nationale et représentative sur toutes les sujets politiques, sur, tout le territoire national. Nous avons partagé un programme adossé aux conclusions des assises nationales. On les a rencontrés, nous avons discuté, waxtaan ñun ak une convergence de vues sur le Sénégal Nous avons une une convergence mais candidat yi dafa am lo xamné dañ koy et ça ça renvoie au profil de l'homme qui est Khalifa ababakar Sall c'est un excellent candidat c'est l'homme qu'il faut à cette situation du pays pays bo xamné dafa craqueler pays bo xamné ay morceaux la def rew mo xamné ni ji yi confrérie ku si nekk yaa ngi xool sa moroom teg ko noonu réew moo xam ne suñu moytuwul di xew si yeneen dëkk yi mën na fi am réew moomu danoo yaakaar ne ku ko war a jox war nga fendi war nga fendi war nga mat war nga am jaar-jaar war nga xam àddina war nga wër àddina xam àddina waaye Sénégal dafa nekk réew mu neex réew mu neex réew mu neex lañu nekk dangay tëdd lekk say ginaar raay sa biir yow ni man naa waa ji jox leen ma ñu ni Khalifa dafa résumer son programme de façon charmante nit ki nit ki l'être humain la créature la plus sacrée, créée à l'image de Allah subhanahu wa taala teg programme nit ki na leen ko jàngal ba mu mbokkal na liggéey na am teraanga na faju na wér na nekk ci réewum jàmm loolu la jiital nit ki ñu ne xalifa mu ni suuf si la terre nourricière Si nous en am autosuffisance alimentaire si nous voulons suñu réew naat nous nous ëpp si nous mi di baykat yi ak yi ak de yi il faut que nous si nous Si nous voulons Sénégal nous fi nekk di luye rey il faut que nous si nous Si nous lañ koy nous voulons, si nous voulons, si il faudrait une autre gestion de la terre on ne l'eau source de vie sans eau point de vie sur terre Khalifa ni man ndox mi sama Sénégal ngay dem tu gis ay je ñoo xamni pour ñu wëgg seeni bala dañuy jël mbaam takk ko muy dox di dem di dox di dem ay kilomètres yi pour que nit ki am ndox moom mu bëggee euh, bàyyi ma muy ndox mi man ne ñett yooyu rek dafa doy ñett yooyu rek doy na sëkk pour jàppale Khalifa Sall le 19 août lors de notre bureau politique à l'unanimité le parti a dit que xalifa Khalifa Ababacar Sall ki nga xam ne tey jii bu ñu ko téyee jàppale ko ànd ak moom réew mi dina changer dina teg réew mi si yoon dina jubale Sénégalais yi ku si nekk dina la jox sa wàll ku si nekk dina la jox sa wërsëg loolu nag ñun mënuñu ko weddi parce que ñun dañoo àndoon ak ay nit def alternance en 2000 ban desew lu séddoo pour liggéey réew mi. Mado la feeñ ñu and ak ay nit def alternance en 2012 bañ de ba sa biir ñu gis la bon nak ñun bu ñuy dem dañuy xol ko xamni ki kat xeyna kat la gis duñ ko le seul exemple j'ai des amis de Dakar Cheikh là Ousmane Ndoye. Les camarades me disent que dans Benno Siggil Sénégal, le seul maire Benno qui faisait du Benno, c'est Khalifa Ababacar Sall. Mm-hmm. Le seul maire Benno qui faisait du Benno, c'est Khalifa Ababacar Sall. mbokku Sénégal mbokku àddina bi réew mi toll na foo xam ni du yëfu xol yëfu xel la. du yëfu xol du yëfu xel la du yëfu ma riirandoo du yëfu ma riirandoo yëf yi dañ koy jàpp ak xel xam ni sur ces dix-neuf à la présidentielle le meilleur candidat c'est Ababacar c'est Khalifa Ababacar Sall may woo Sénégal yi nga xam ni ñu ngi ci réew mi ñu ngi ci diaspora bi di woo mag ñi ñu wax ak xalé yi di wo xalé yi nga xamné un certain niveau parce que xalé yi aussi ben leen seen i bàyyi école ñu jang ba tollu fenn fi amna ay yenn yo xamné ñoo a éclairer sen ay morom may wo xalé yi di wo góor ñi di wo jigéen ñi ñun wa LD on est derrière Khalifa Sall on a toujours dit que les hommes de gauche c'est des faiseurs de roi aujourd'hui la LD debout parti de gauche sera un faiseur de président et le 24 prochain, mars 2024, nous allons élire massivement, massivement au premier tour, le président Khalifa Ababakar Sall. Donc, nous